jërë ngeen jëf mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen site internet bu Sénégal 5 tey alxames yemook fukki fan ak ñeent ci weeru octobre atum 2021 ñu ngi leen di dikte rek li gën a fës ci bopp xabaar yi ñëw ci libération Guy Marius Sagna li ñu jot jàpp ci waxtu yu mujj yi verdict ba nag daal nay leeral jëmale ci procès Guy Marius Sagna juge ba moom mujje naa décidé ni du tëj kii di activiste bi lu dul ñetti weeru kaso akub sursis loolu nag daal dinay wane ni du fa rek toog en détention sa një njëlbeen nag parquet ba daal dinay bëgg rek ñu daal di koy tëj deux ans de prison ak six mois ferme akub amende bu deux cent mille francs wante juge bi nag moom toppul loolu euh, ñu wax ci yeneen xibaar gone gu daal di euh, deewoon rek ci lakk-lakk fële ca clinique bu Madeleine euh, barki démb nag moo nekkoon seen mujjanteelu waxtu de garde à vue ñeent membre clinique de Madeleine yooyu ñu interpellé ci faatu xale bi daldi nañ leen defeere ca parquet ca parquet ba ngir homicide involontaire ñett ci ñoom daldi nañ leen di tëj wante balaa loolu naka daldi nañ indi ay leeral ci kanamu l'enquêteur yi le pédiatre ba ak l'infirmière ba ak nurse ba naka daldi nañ leen placé sous mandat de dépôt directeuru clinique ba nag moom placé nañ ko sous contrôle judiciaire bu ñu sukkandikoo ci l'enquête bi nurse bi euh, wax na ni moom moo doonoon ku doon toppatoo xale bi ci anam yu jafe-jafe wante ay 6 heures du matin daal la daal di xam ne gone gi daal di nay ñàkk bakkanam xamle na rek ba tey ni amul machine bu munoon rek wane ni xale bi daal di nay génn àddina euh, pédiatre ba moom li mu xamle mooy daawul xool liggéeyu ña mu jiite woon wante moom sax moo joxe woon autorisation ngir ñu dugal gone gi ci machine phytothérapie bile ba tey mu wax ni signalé nañ ko ci salle ñuy defee traitement bi yaatuwul te amul tamit ab température bu baax wax na itam ni condition yépp dajewuñu woon ngir équipe bi daal di mën a ceytu xale bi ñu wax ci leneen local 2022 Adama Faye di frère ci première dame moom daal daal nay teggi rek directive bu Macky Sall yi le Adama nag nekk membre du parti présidentiel nekk tamit beau frère président bi ba tey daal dinay créer ab coalition bu bees ci élection yi ñu jëm kii di président Sall naka waxoon na ne ay responsable parti wam ak coalition bi ñu daal di xaarandi ay instruction am aadama Faye moom daal di nay tege instruction yooyu le daal di jug ngir créer ab coalition bu bees bu bokkul ak benn Bokk Yaakaar moom aadama fay daal di nay tuddee coalition bi defar sa goxo nee nañ sax jot na déposer ab caution wu 30 millions fële ca caisse de dépôt et de consignation ñu wax ci leneen li jëm ci train express njëg yi passagers yi war a fay nag daal di nañ koy rek siiwal teer bi dina tàmbale daw ci weeru décembre loole la ñu daal di xamal autorité yi njëg gi nag daal nañ koy sax mujjee siiwal kii di Abdou Ndéné Sall mooy directeur général bu SENTER société nationale de gestion du patrimoine du train express régional wax na ni trajet bi daañu ko xaaj ci ñaari zone ña jëm ba yi nak ña nga war a fay 600 francs ñay jàll ba Diamniadio ñoom dinañ fay 2200 daal di xamle moom mii di Abdou Ndéné Sall euh, wax na ni rek ba tey ni président dafa rek subventionné prix yi ngir teer mën a njëriñ ñëpp bu ñu ko tëkkalee nag ak yeneen mode de transport yi monsieur Sall nag moom jàpp na ni prix bi nekk na prix yu yamamaay te acceptable ñu ñëw ci euh, communiqué du jour bu Covid 19 ba sub tey daal di nañu am nag 1460 1453 tests yi ñu réalisé 5 nag ñoo si daal di positif wante amuñu benn cas euh, communautaire amuñu benn cas importé amuñu tamit benn cas contact waaye juróomi cas communautaire daal la ñu daal di am ñu wax ci leneen lu jëm ci wàllu tàggat yaram Aliou Cissé coach coachu gaynde yi le daal dinay rek wax ni dinañ gën a am yaakaar ci kaan yi ñu jëm gannaaw ba équipe bi amee ndam talaata bële passé fële ca Afrique du Sud ci digganteem ak Namibie ñu mën a wax ni sax qualification qualification la ci éliminatoire mondial 2022 Aliou Cissé sélectionneur bu équipe bu Sénégal daal dinay wax rek li ko gën a impressionné maa ngi leen di félicité ci qualification prochain tour bi maa ngi leen di félicité ñoom ñëpp joueurs yi nga xam ni saa su nekk ñoo ngi def preuve de patriotisme ñoo ngi def ay sacrifice ngir ñëw défendre seen couleur réew qualifié nañ wante des na ñaari match ci weeru novembre bi ci diggante Togo ak Congo dinañ def lépp ngir am ndam du nekk lu yomb wante dinañ si dem ba jeex dëgg la ñeenti victoire yi tegaloo ci éliminatoire yi euh, dina tax ñu gën a am yaakaar ci kaan yi ñu jëm loole lañu daal di xamal kile di euh, sélectionneur bu Sénégal di Aliou Cissé mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ci seen euh, actu du jour ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg ci yeneeni xabaar balaa boobu bu leen fàtte nag abonné ci sunu chaîne YouTube jërë ngeen jëf